waaw euh, su ngeen seetloo dans la presse euh, faralu may di wax ci sama diggante Idrissa sama position la parce que bugguma ay yee ay fitna te Sénégal fi mu ne doo jublu ci euh, dialogue te bu ma delloo si yenn yi mën na indi ay tontonte yoo xam ne gënaluma parce que Idrissa may ànd ak moom ñëpp xam nañ ànd ak moom j'étais même en 2007 son directeur de campagne pour vous dire fu ñu eggoon boo gisee récépissé réew mi bu fekkee changé wuñu ko ñetti nit a ca nekk Idrissa feu euh, Youssou Diagne ak man donc maam fondateur de réew mi pour vous que lu sori la woon def nañ lu bëree bëri mais bëgguma di dellu si dama bëgg daal ñu commenter l' actualité parce que euh, journal bu mu koy wax la la le vendredi bi muy def kii yam le matin la sama interview génn. Mhm. donc naa déjà interpellé lu may leen su fekkee daa bëgg a nekk candidat sénégalais la am na plein droit déclarer que mais da ko wax sa c'était le matin le journal bi génn effectivement def na déclaration am ne euh, day nekk candidat mais yokkal naa ci ne man li ma préoccupé parce que ba fii may wax maa ngi kii benn bokk yaakaar benn acte buy affaiblir benn bokk yaakaar man dak ànduma ci nit ku nekk nag am nga sa droit posé la ci yokkan mooy que ne Benno Bokk Yaakaar ay alliés la ñoo ko bokk ay nawle noonu la ñu ànde woon 2012 ba fal Macky Sall falaat ko en 2019 lu gën a lu gën a xam bu fekkee ne allié lañu ay nawle su fekkee ne candidature day amaat nañu ko posé ci biir Benno Bokk Yaakaar def nañu séminaire man coalition sous coalition bi may jiite muy gestion GSLR. donc dañ ci ñëw. dañ ci ñëw seen sous coalition. bi avec euh, treize formations. waxat naaj waxat nañu effectivement ñun lu ñu gëm pour bennoo mooy que ne luñ ci wax nañ ko wax ci biir bennoo kon parti yi gën di wax ak leader yi gën di wax ñoom la engagé mais man sans principe ak li ñu jàpp mooy que ne loolu ci biir bennoo la bu fi Idrissa jëlee fit sa sagoobu xam li mu xam jël décision ne day def candidature mais sénégalais yaago mu ngi loolu donc awma ci vraiment ay commentaires yu may def yu de candidat la bon il est sénégalais mhm. na nekk candidat bon euh, en tout cas man maa ngi bennoo ker bu déclaration waxee prise de position waree jot fi ma ko war a waxee danaa ko wax c'est clair clair